إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله قال تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ومن فضل الله على هذه الامه أن جعل لها شعيرة ليست لأحد من الأمم قبلها هي فديلة الأذان والأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة لأن التكبير يتضمن وجود الله وإثبات صفات الجلال والعظمة له وشهادتان تثبتان التوحيد الخالص ورسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم وتنفيان الشرك ثم دعا إلى طاعة مخصوصة أقبى الشهادة بالرسالة لأنها لا تعرف إلا من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الفلاح يشير إلى المآد والجزاء وقد شرع الله سبحانه وتعالى النداء في المدينة حين استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في طلب طريق يعرفون بها دخول الوقت ليأتوا إلى الصلاة في المسجد فاختلفوا فرأى عبد الله بن زيد الأنصاري من أعلمه الأذان فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤياه فقال إنها رؤيا حق فألقيه على بلال لأنه رفيع الصوت رواه الترمذي وأبو داود وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما لا يعرفهم يستدل على إسلامهم بالأذان وعلى كفرهم بتركه mbokk yi ñu ngi sant sunu boroom bi jullit ñi war a sax di ko sant fu ñu mën a toll ak nu ñu mën a nekkee ñu ngi koy gërëm di ko ñaan mu jéggal ñu sunu bakkaar yu bari te musal ñu ci sunu ay bakkan moom rekk moo yeyoo ñu koy jaamu ki mu yónni woon di muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom rekk moo yeyoo jàngale nu ñuy jaamoo yàlla ñi ngi ñaan yàlla na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi ko nangoo roy ba ilaa yawmi diin gannaaw loolu mbokk jullit na ngeen ragal yàlla ni yàlla yeyoo ñu ragal ko ko lu ngeen xam ci ay ndigalam def leen lu ngeen xam ci ay tere bàyyi leen ca bu leen dee lu dul yéen a ngi ko jébbalul xam leen ni ki topp yàlla ak yonentam kooku day texe ne gën jaam ak gi texe bu dee loolu wéy na sunu boroom tagg na xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla boole ñu ci mu ne yéen de yéenay ngën ji xeet yoo xam ne mas nañ koo génne ñeel nit ñi yéenay digle lu baax yéenay teru lu bon ca da ngeen a gëm yàlla mbokk sunu borom moo ñu def ngeen ji xeet ndax defal nañu ci ay façon jaamu yàlla yoo xam ne xeet yi jiitu woon benn amu ko ci bokk na ci ngëneel yooyu lii nga xam ne mooy benn màndarga bu màgg a màgg a màgg di benn bàkk di benn hymne muy lan muy la nga xamee ni nii benn xeet yi jiitu musuñu koo am du yahudiya du nasaraaniya du ña leen jiitu woon loolu mbokk mooy ngëneelu li ngeen dégg sànq te mooy ngëneelu ak nodd mbokk noddu ak tuuti gi mu tuuti ci ay wax tënk na lépp loo xam ne lu julit war a gëm la gannaaw ba saxal ne bépp màggaayi sunu borom jalla wa ala saxal na tawxid saxal na la nga xam ne mooy ak yonent waaye woote na jéeme ci jaamu yàlla gi gën a màgg gi ñu defal yàlla ci kaw suuf waaye it woote ne jéeme ci ak texe adduna ak texe allaxira loolee mbokk moom mooy li ñuy tuddee ak nodd naka la nodd dikke woon sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam dem na madina yàlla may ko mu tabax jàkkaam ja ba mu ko tabaxee ñu fay war a daje juróomi yoon di julli par bis nit ñi buñ daan julli ji dañuy toog rek ku nekk jógal sa bopp wala ku jaar sa kër moroom daal di koy woo benn bis mu dajale leen ne ñun kat war nañoo seet loo xam ne suñ ko defee nit ñi xam ne waxtu julli jot na waaye ñu xam it ne waxtu dem jàkka ja jot na loolee mu ne sahaaba yi lu ngeen ci xalaat ca mooy sallallahu alayhi wa sallam kilifa la woon gu mat kilifa mooy da daan diisoo ak i sahaabaam mu yeen lu ngeen xalaat am ñoo xam ne dañ ne ko ah comme yahudi yi déet wala am ñoo xam ne dañ ne ko te ñoo wut benn béjjén boo xam ne bu dee ne waxtu jot noo ñu daal di koy mbiib ca béjjén mën nañ koo def comme clairon nga xam ne buñ ko mbiibee dana dem ay kilomètres mu ne loolu day suñ ko defee kon dañuy nuroo ak yahudi yi ndax yahudi yi noonu la ñuy wootante ci julli am ñu ne kon nañu wut benn cloche benn jóolóol yi bu waxtu yu julli jotee ñu daal di koy fëgg mu ne loolu buñ ko defee dañuy nuroo ak nasaraan yi loolee ba ñu xamee ne wax nañu am ñu melal it sawara bu ñuy taal mu ne kon dañuy nuroo ak majus yi ca man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum daal di leen di jàngal ne képp ku nuru nurulu aw xeet ca ñoom nga bokk loolu mbokk njël biinu ngeneelu nodd mooy lum lay jàngal yow jullit wuroo nuroog yahudi ak nasaraan yi ci zahir ak ci baatin na doon lu feeñ la na doon lu nëbbu la jullit da ngaa am sa identité personnelle sibghat allahi wa man ahsanu min allahi sibga yàlla dalaa melal aw melokaan jëf loola aw jëfin gëm loola ab pas-pas ca loolu lépp daa wuuteeg yahudi ak nasaraan yi la ñu gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen waaw nañ leen dem ba ëllëg ba ñu demee ba ci guddi gi kenn ci sahaaba yi ñu koy wax abdullah ibnu zayd al ansaari daa di tëdd guddi gént dajeeg benn waay ma nga tuwaaletu yor benn cloche mu ne ko waayoo doo ma jaay sa cloche bi mu ne ko loo koy doyee mu ne dama koo bëgg yóbbu ca jàkka ja bu julli jotee ñu daal di koy fëgg ngiree ñu xam julli jot na mu ne xanaa dookaay ma jàngal la lu gën loolu mu ne ko loolu lan la mu daal di koy jàngal ni ñuy nodde kii nga xam ne mooy abdullah ba mu yeewoo ci njël gi daw riir jëm kër kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa dina ko dama gént gént gu yéeme netti li ko li mu gént yonent bi ne ko sa gént googu day ci yàlla la jóge demal nga jàngal ko bilaal ndax bilaal moo la gën a kawe nodd naka bilaal jàng nodd gi ci abdullah daa di koy yëkk ci allahu akbar allahu akbar omar ibnul xataab dawee ca këram di diri mbalaanam ñëw na yonent bi alayhi salaam maa ngi seede ci yàlla mi la yónni ne lii bilaal di di wax biig laa géntu ñu wax ma ko muy ñaari saxaaba yoo xam ne ñoo ko ji géntandoo ci benn bis muy loo xam ne ci yàlla subhanahu wa taala la jóge nodd mi ngi noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy saxal ci xeetam ñu koy wootente ci julli ba mu demee ba nga xamee ne yàlla kattanal na ko ci atum juróom-ñetteel ma lu bari ci giir arab yi dañ doon ñëw ne jébbalu nañu ci biir lislaam am na ca ñu dëggu woon am na ca ñu ñoo xam ne dañ doon naxante loolee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su daan def tournée jihad su ñëwee ci benn dëkk dañuy fanaan ca wetu dëkk ba suñu bàyyee ba jant bi fenk benn noddu jógewul ci dëkk bi ñu attaqué leen xam ne seen ngëm wérul amma buñ déggee noddu ñu xam ne kon ñii seenu jébbulu wér na loolu it mu nekk nodd ni mu nekk sécurité doon lii di amaan te la nga xam ne mooy wone ñoo xam ne ay julit lañu ak ñoo xam ne duñu ay julit mbokk lan mooy nodd nodd mooy li nga xamee ni nii sunu boroom ba mu koy jàngale da koo ubbee ci màggal boppam allahu akbar muy wone ne yàlla moo gën a màgg lépp benn waay ma nga nekkoon ne ca biir service am ak directeur am waaye dégg na allahu akbar mu daa di fàttaliku ne ah man kat yàlla mi sama boroom mooy ki nga xam ne moo gën a màggi directeur bi moo yàlla moomu ana lan la bëgg ci man daa di déglu bu baax daa di baamu wax ji yow mi nekkoon ca armée bi ak sa général nga xam ne kii kat bu dee général la kilifa ñépp woote na yow mi nga xam ne nii da ngaa nekkoon sa kanamu jëkkër nga xam ne sa kilifa sa kilifa jëkkër woote na bal bu doon te ne dañoo nekk ak président de la république ba sax ñu xam ne ki moom président de la république woote na loolee lan la ñuy déggal ñu daal di bàyyi lépp borom boobu nga xam ne moo gën a màgg mooy ki moom lépp ca léppam a gën a màgg lépp léppam moo gën a màgg lépp su dee woo na la nga wuy si ko lam la nar a fay àdduna buñ daje woon mënuñu la koo fay abadan waaye soo ko moyee bam nar laa mbugal àdduna yépp buñ daje woon dajale woon seen mbugal duñ mën a mbugal mbugalu yàlla moo tax firawna ba mën a seen jabar yi lu tax ngeen di bàyyi sama ndigal naan da ngeen di defe ndigalu yàlla dinaa leen rey daaj leen ci garab yi dañ ne ko lu la neex defal wallahu xayrun wa abqa pay yàlla gën moo gën a sax te mbugalu yàlla yi tamit moo gën a sax sa mbugal loolee mbokk la bépp julit di fàttaliku heure bu déggee nodd mu dégg fàttaliku rabbul alamin kilifa kilifa yi borom fay yu màgg ya waaye borom mbugal yu tar ya aji noddkat bi daa dalay wax ne ashhadu an la ilaha illa allah maa ngi seede ne amul kenn ku yow ñu koy jaamu ku dul yàlla ca yow ab julit loolee lan la lay fàttali mooy yow jaamub yàlla nga dangaa ñëwoon ci kaw suuf ngir nekk jaamu yàlla ñëwoo ngir nekk élève wala médecin ñëwoo ngir nekk jabar ju baax wala jëkkër ju baax waaye dangaa ñëwoon ngir nekk jaamu yàlla loolee mooy tax ba àdduna ak li ci biiram su doon daa tege ci côté la nga xamee ni nii mooy wuy ji yàlla tege ci côté da nga bàyyi àdduna ak li ci biiram dem wuy ji yàlla subhanahu wa taala loolu la yàlla tagge woon almuhajirin wal ansar ba ñu bàyyee seen alal ak seen njaboot yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwana dem wuy ji sunu boroom subhanahu wa taala képp koo xam ne nii nag àdduna da nga nekk gis nañu ne ba yàlla wootee da nga caa continuer kookee def nga àdduna muy sa boroom moom la yonent bi alayhi salaam dañ wax naan taisa abdu dinar taisa abdu dirham ey waay yàlla na alku yàlla na perte ki nga xam ne dinaar mooy yàllaam cay mooy ki nga xam ne seefa mooy yàllaam ki nga xam ne oor ak wurus mooy yàllaam te mooy képp koo xam ne intérêt adduna tee na laa wuji sa borom waaye gannaaw loolu noddkat bi fàttali ne ashhadu anna muhammadan rasulullah maa ngi lay fàttali ne muhammad mooy yonent yàlla waaju baax jooju soppe bu mag boobu kilifa mboolem loo xam ne yàlla bind na ko di seen sang mooy kenn ci kaw suuf tey ak démb koo xamee ni nii daan yëkkati aw turam di ko bàkk loolee mbokk président Amérique amu ko président Russe amu ko président France amu ko milliardaires yi amuñu ko généraux yi amuñu ko artistes yi gën a kawe amuñu ko kenn rek moo am ñu yëkkati aw turam ci mboolem loo xam ne dëkk nañ ko ci suuf muy sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam ashhadu anna muhammadan rasulullah di la fàttali na muhammad moo yonent yàlla di la jàngal na yonent yàlla boobu moo ñëwoon pour jàngal la nu ñuy jaamoo yàlla ci ñetti façon ca ay waxam ci ay jëfam ci lu mu seetaan ñu def ko ci kanamam loolu mooy la nga xam ne mooy sunna muy wone ne kon mboole mi jaamu yàlla dañ ko war a rey ci yonent boobu na doon la nga xamee ni ni aj makka la wala koor la wala lu mën a doon ci jaamu yàlla yi dañ koo war a reye ci yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam rawatina nag li nga xam ne mooy li teew aji noddukat bi gannaaw ba mu la fàttalee màggug yàlla fàttali la li taxoon nga ñëw ci kaw suuf te mooy jaamu yàlla bañ koo bokkaaleeg dara fàttali la ka nga xamee ne moo ñëwoon di ko jàngale muy sunu yonent mu dala nag hayya ala salaat ey waay kaay leen ñu julli julli mooy lan mooy addu'a kaay leen ñu dajaloo bokk ñaan yàlla subhanahu wa taala kaay leen ñu tagg yàlla bakku ko ñaan ko yàlla mi nga xam ne moo yor magasin asamaan ak suuf yàlla mi nga xam ne lépp luy lor ci asamaan ak suuf ci loxoom la nekk kenn munta am njëriñ lu dul moo joxe ndigal kenn munta mucc ci lor lu dul moo joxe ndigal ay waay kaay leen ñu ñaan yàlla moomu hayya ala salaa daal di leen di woo kaay leen waaye salaa boobu bu ñëwee dañoo waxoon sànq ne ñi ngi seede ne muhammad yonent yàlla la kon gaa yi dañoo war a jullee na muhammad alayhi salaam doon jullee mi ngi noonu mu yonent bi moo ne woon sallu kama raaytumuni usalli tey jii ñaari jullit wuute wuñ ci ne suñ dajee di julli timis ku julli ñaari rakkaa sa julli baaxul ku julli ñeenti rakkaa sa julli baaxul il faut nga julli ñetti rakkaa lu tax loolu ndax yàlla daa wax ci alquran timis ñetti rakkaa lay nekk la wallahi waaye sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam moo jàngale woon ne timis ñetti rakkaa lay nekk noonee nga tënk say rakk ci ñetti rakka ngal la waay góorgóorlul ba takbiratul ihram fa ngay waxe allahu akbar ba si ngay waxe assalaamu aleykum lépp nga dëppale ko ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii rek mooy tax yàlla subhanahu wa taala nangul la loolee ba nga xamee ne waa di wax na ko baamu ko mu ne hayya ala alfalaah ay waay kaay leen ci li nga xam ne mooy taxa texe mbokk julli fa la taxe nekk sunu borom mu ne qad aflaha almuminuun alladina hum fi salaatihim xaashiuun texe na jullit ñi nga xam ne heure bu ñuy julli dañuy toroxlu ci seeni julli naam mbokk bu ñu demee yowm alqiyaama sunu borom li muy jëkk a xool sunuy jëf mooy sunuy julli la ñuy jëkk a xool julli yi baax na sunu borom ne malaaka yi jéggal leen ko lu ci des ñu daal di koy tabbal aljanna yal na yàlla boole ñu ci ñooñu waaye bu dee ne dañoo xool julli ya baaxul dañuy réviser dossier yépp loo mas a def ci kaw suuf ca yonent bi alayhi salaam nee na képp ku ñu xool say dossier dañ lu mbugal kon hayya alal falaax kaay leen ci li nga xam ne moo leen di texeel texe googu nga xam ne su dee yow jullit xam nga lan mooy julli xam lan ngay wax ak sa borom ci julli gi julli googu dalay dalal ndax benn yaa ngi am audience ak rabbul alamin maa ngi dégg ci presse bi lu yàggul rek benn waay bu gëjoon a gisanteeg président ma accordel ko audience ba mu demee ci audience ba la ko crise daaneel ba mu yóbbu ko hôpital mu daal di faatu ndax émission ba mu àndaloon yow yaa ngi am audience ak rabbul alamin sa borom subhanahu wa taala yonente bi alayhi salaam ne al musalli yunaji rabba jullikat mi ngi déeyoo ak boroomam loolee dalay dalal nga xam li ngay wax sa boroom moo tax heure bu fitna masaan ñëw ci biir lislaam yonente bi alayhi salaam daan wax bilaal arihna biha ya bilaal ay bilaal noddal bilaal nodd ñu dajaloo julli rek mbir mi daal di dal ci ñoom kon boo bëggee ak dal soo bëggee ak teey xamal ni julli gi dëppoog sunna mooy la nga xam ne moo la koy may loolu moo tax ba mbokk jullit xatta bu doon dalaa fekk sa biiri nelaw ca waxtu yëg nelaw gën a neexe mooy fajar yonent bi alayhi salaam danaan sant noddukat ya ñu dolli ci asalaatu xayru min a nawm nelaw day moo julli day moo gën ay nelaw julli day moo gën ay nelaw loole yi tamit da ngay gis moo tax naafiq yi duñu respecté julli gee duñu respecté julli fajar ndax nelaw yi ñuy nelaw yonent bi alayhi salaam ne moo la bu ñu xamoon ngeen lii ci nekk day buñ doon darngu di ñëw ci jàkka ji sax daan darngu ñëw ci jàkka ji noonee nga xam ne noonu la gën a nelaw noonu lañu sunu borom waxee ne moo gën commerce yaa ayuha allazina amanu ida nuudiya lisalaati min yawmi aljumaa fasaw ila zikri llahi wa zaru lbay zalikum xayrun lakum e yéen julit ni bu ngeen déggee ñu noddal ajjuma ngalla waay bàyyi leen commerce bi ngeen wuuji seen boroom ndax loolu moo gën ñeel leen waaw gaa yi nelaw mi nga xam ne dana toll foo xam ne dañ naan farata lay doon ci doomu aadama bi sax mu def ko mi ngi noonu yonent bi alayhi salaam nee na ki jóg guddi bëgg naa fi la xamul lu muy wax ngir gëmmentu na nelaw bala muy rëbb boppam waaye teewul bu dee farata teew na sunu borom ne nelaw moo gën commerce bi nga xam ne moo yor àdduna sunu borom mu ne julli moo gën moo ana koo xam ne ab film moo tax mu bañ a wuy ji aji nodd ji moo ana koo xam ne lii nga xam ne mooy football moo tee mu wuy aji nodd ji ana koo xam ne damyee moo tee mu wuy aji nodd ji bal ana koo xam ne bëgg a teel a yegg ci tukkeem moo tax mu wuy ji aji nodd ji te loolu it maa ngi leen koy ñaax ngalla waay xam leen ne quatre-vingt-dix pour cent ñiy tukki ci réew mi dañuy faat ay waxtu rawatina horaire yi départ avant fajar néew na ci ñoom ñoo xam ne dañ may nit ñi julli te même bu doon julli nit ñay julli ñoo gën a néew ñu julliwul te bus bu ne ngeen dégg horaire bu accidenté même pas ñetti fan dégg ngeen ci kaa bu demee noonu kon lépp loo xam ne mbiri àdduna la bu mu tax mukk mu yàqal la sa julli la nga xamee ne moom la aji noddokat bi di wax mooy da ngay gis ne dana bàkkaat sunu boroom comme nam ko bàkki woon ci njëlbeen daa di tëje la nga xam ne moom lu ubbee woon te mooy laa ilaha illallah kaddu gu màgg googu nga xam ne yonent bi alayhi salaam nee na ku ko mujje ci sa dund àddina nga jëm koo xam ne li nga mujje wax mooy laa ilaha illallah ku mel noonu àddina la jëm lan moo la koy may mooy baril ko ci salaam miñ ci jëm koo dund mbokk nodd mi ngi nii ak la mu ëmb ca la nga xamee ni nii moom mooy mandargam yu màgg ya yal na yàlla subhanahu wa taala fàttali wax ñu ko te wërsëgal ñu dundaat ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ibadallah qala taala وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه إلا أن يستهموا عليه لاستحموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا أين مكجلت نيجي يسال سانت سونو بروم سبحانه وتعالى ميغا خامني مو سوتي اي نغنيل نيل جوليت ني يوننت سونو بروم بوبو nga xamni li di bak wu mag wi mu ñu may muy noddu nee na heure bu ngeen di wootante ci noddu yéeféer yi ak naafiq yi dañu leen ci saboote lu tax mooy xeet lañ boo xam ne xamuñu mbokk mi ngi noonu mooy ab yéeféer wala naafiq noddu da koy déranger loolee dañuy gis ne ñàkk a xam ci ndaf mooy waral loolu na am ndax ay taalibay seytaane lañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na cheytaan ak ni ma xamee noddu la muy def ci biir julit ñi daa bañ nodd bañeel goo xam ne heure bu noddkat bi commencé yëkkati cheytaana day daw ànd ak di génne ca gannaaw ga ay bomb yoo xam ne moo gën a kawe kaddu noddukat gi ngiree rek bañ a dégg nodd gi si noonee nga xam ne noonu la ko bañ a déggee noonu la yéeféer yi mel waaye sunu yonent alayhi salaam nee na nit ñi day bu ñu xamoon li nekk ci noddu ak to ak teel a ñëw te jàkka ja ba toog te place bu ca ba toog te premier sappe loolee day buñ ko xamoon même buñ demoon ba ci loterie sax daañu loterie ngiree mën a féetewoo loolu lii nga xamee ni nii yonent bi alayhi salaam wax na ko ci nodd mbokk mbir la yoo xam ni nii ku ci bàyyi xel dëgg da ngay gis ne ak pa ak place gënu koo kawe waaye na am su dee noddkatu seytaane yi muy musicien yi benn show mën nañ caa ramasser cent millions ak i kat kat moo gaa yi ana noddkati borom bi subhanahu wa taala ñooñu ana lan la leen yàlla dencal kii nga xam ne mooy muawiya radiallahu anhu nee na buñ demee yowmal qiyaama day bokk na ñi gën a sut nit ñépp mooy noddukat yi loolee ngëneel la bu leen di yàlla defal yowmal qiyaam ca gaayu mbooloo bu xonte sut baax na ca lool abi hurayra yi daal di cay teg ne yonent bi alayhi salaam day daana wax ne imaam moom ab garanti la mooy dañuy julli ci gannaawam bu matalee moo xam bu matalul it nit ñi ñoom seen julli mat na mu ne noddkat yi dañ leen a wóolu yal na yàlla jubal imaam yi yal na yàlla yërëm noddkat yi loolee ba nga xamee ne wax na ko omar ibnul xataab nee na bu dul woon ak moo nekk xalifa du bàyyee kenn la nga xam ne mooy ak nodd waaye loolu da ngay gis ne ba mu amee tamit noonu la demee sunu yonente alayhi salaam wax ci leneen lu gën a neexate encore ci li nga xam ne bara ibnu azib nettali na ko nee na yonente bi alayhi salatu wasalaam nee ne day noddukat bi yàlla dana ko jéggal lu toll ne fa kàddoom yegg ca amul lenn loo xam ne mi ngi ci diggante bi kàddu ga yegg ci lu wow wala lu tooy lu dul yowmal qiyaama dana ñëw taxaw ci kanamu borom bi seedeel noddukat bi la mu doon def beneen ba ca gën a dàqati mooy mboolem ku ñëw ci jàkka ji yoolu julli gam am daan ko bindal noddukat bi gaa yi xanaa kon noddu neex na lool benn sahaaba bi ñu wax abdullah ibn umar ibn al as nee na benn ci sahaaba yi ne yonent bi alayhi salaam ah kon kay noddukat yi ñoom yóbbu nañ fa bi yëpp yonent bi alayhi salatu wasalaam ne leen xanaa xamu leen ne aji noddukat ji su dee da ngeen a ànd ak moom di wax li muy wax da ngeen di am fay bu toll ne bi mu am gaa yi loolu ngeen bàyyi ci xel bu baax loolee moom la Omar ibnul Xattaab nettali ne ki nga xam ne daa dégg aji noddukat bi di nodd mu ànd ak moom wax li mu wax ba mu jeexal te wax ji mi ngi ko jële ci xolam kooku day tàbbi aljanna moom la yonent bi alayhi salaam waxin ne su ngeen déggee aji noddukat bi wax leen lu mel ne li muy wax yéen góor ñi yéen jigéen ñi yéen xale yeeg mag ñi bu ngeen déggee nodd wax leen li noddkat bi di wax loolee lenn ci borom xam-xam yi dem nañ sax ba ne farata la doonte ne la ëpp ci ñoom dañ ne sunna la mi ngi doon wax leen li muy wax gannaaw ba na ngeen ma na ngeen julli ci man allahuma salli ala muhammad loolu mooy li ci gën a gàtt gannaaw ba ngeen ñaanal ma li nga xam ne mooy alwasila wasila benn place bu kawe la ci aljanna benn ci jaami yàlla yi rek moo ciy dëkkee képp koo xam ne ñaanal na ma ko ku mel noonu dana dagal ñu romb ko yowmal qiyaama noonee ñu koy ñaane kii di jaabir ibn abdullah nettali nañu ko yonent bi alayhi salaam ne da nga naan allahuma rabba hadihi dawati tamma wa salati alqaima aati muhammadan alwasilata walfadila wabaasu maqaman mahmudan alazi waatta ey yàlla yow mi nga xam ne yaay borom woote bu matali bi yaay borom julli gi ñu nar a taxawal yal na nga jox sunu yonent bi wasila buñ ko dig génne ko ci place bu kawee ba nga xam ne ñëpp dañ ko dañ ko ca gërëm yow doo wuute ak say dig mi ngi noonu wala boog ba nga xam ne dig nga ko lii bu dee mën a goo ko ci arab bi foo dégg nodd àndal ak noddukat bi su paree jullil ci yonent bi nga ne yàlla yal na nga may sunu yonent la nga xam ne moom mooy alwasila lii da ngay gis ne benn mbir la boo xam ne ñépp war nañ cee bàyyi xel gannaaw loolu boo déggee nodd gi ba pare kii di anas ibnu malikin radiallahu anhu nee na diggante fi ñu nodde ba fi ñuy liqaame day yàlla du ci delloo ay ñaan te mooy baril ñaan say ñaan ci lu jëm ci wàllu adduna ak lu jëm ci wàllu alaxira mbokk nodd ngi nii dangaa judd fekk fi nodd ñu deme deme dem ba mujj koo miin waaye nga la waay màggal ko ni sunu gouverneur yi màggali hymne national heure boo xam ne dañuy tëgg hymne national di yëkkati drapeau dañuy imposer nit ñépp nañu noppi nit ñépp nañ taxaw gars yi lan mooy hymne national pincé tous boo ko raa frappé le balafon lan la la mën a jëriñ amma li nga xamee ne mooy li jóge ci sa boroom yonent bi daan ko wax sahaaba yi daan ko wax nit ñu baax ñeeg sëriñ su baax ñëpp daan ko wax bi ilaa mina hasa loolee mbokk mooy li nga xam ne moom la ñu war a màggal doonte ni lu bari ci doomu aadama yi da ngay gis gis na xamuñu valeur am waaye noddkat bi lu jege ñaar fukki yoon par bis dana yëkkati allahu akbar allahu akbar dana ko wax ñaar fukki yoon ci lu gën a néew bal bu dee jàkk yi ñuy wax allahu akbar allahu akbar ñeenti yoon sax fanweeri yoon dana la ko wax nodd gu ne juróom benn yoon juróomi nodd muy fanweer dana la wax laa ilaha illallah fukki yoon ak juróom muhammad rasulullah fukki yoon woola ci julli fukki yoon ay yàllal falaa fukki yoon lii lépp mbokk nodd dañu koy fàttali fàttali ñu sunu pas-pas fàttali ñu sunu royukaay fàttali ñu sunu jaamu yàlla gi gën a màgg muy julli fàttali ñu la ñuy tax a texe àdduna ak alaxira lii mooy la nga xamee ne moom la ñu nodd di fàttali amma yow boo àndeeg moom am nga njéggalu yàlla yow it da nga am yoolu ñu julli ca jàkk ji ñépp yowmal qiyaama yonent bi dana la ramm te it dana la tabbal yàlla subhanahu wa taala dana la tabbal aljanna yal na yàlla nangul suñuy noddukat waaye yal na yàlla wërsëgal ñu ànd ak ñoom suba ngoon ci noddu googu yàlla nangul ñu nam leen nangule allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab an-nar rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin subhana rabbika rabbil izzati ma yasifuna wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين